man piyeer maa leen di bind yeen doxandeem mi tasaaroo ci diwaanu pont galasi kapados asi ak bitini yàlla baay bi tànn na leen ci li leen xam bu jiitu te sedde leen boppam ci jëfu xel mu sell mi ngir ngeen déggal ko te seen xol laab ndax deretu Yeesu Kirist na leen yàlla dolli yiw ak jàmm cant sunu boroom Yeesu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 jéem ñoo takk kañ ak nan lay ame waaye yàlla xamal na leen ne moomuñu woon kàddu googu ñu wax waaye yéen a ko moom te mooy kàddu gi ngeen dégg ci gémmiñu ñi leen doon jettali xabaar bu baax bi ci doole xel mu sell mi yàlla yónnee asamaan malaaka yi sax bëgg nañoo gëstu yëf yii